jungle. na fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek kii di Malick Ndiaye nga xamante ne rek moom moo nekk jëwriñ bu ji nag di wax rek engagement bi nga xamante ne rek namm na koo amal nag ca boobu lee bopp mbir nga xamante ne rek moom lañu ko dal di dénk nekk na mbir moo xamante ne rek moom moo fas yéene nag yëkkati koom-koomu réew mi mbir mu nu mel nag mi ngi ko daal xam ne rek niki tey foofa ca diwaan bu jam ñaajo ginnaaw nag mu annoncé gisee li nga xamante ne rek moom mooy jàngat bi yaatu bi nga xamante ne rek def na ko ci boobu boobule secteur ngir mëtale nag lu ñu koy dénk ci kanam ki nga xamante ne rek la fi fas yéene yu wuutu ji di Mansour Faye kii di Malick Ndiaye daal dinay xam ne rek ambition bi nga xamante ne daal dina koy am nag ngir gérer bu baax boobule bopp moomel waaye nag fas yéene na koo gérer ak lii di efficacité maanaam daal lépp loo xamante ne rek xarañteef la moom nag daal dina yëkkati kàddoom rek ci lu ñeel li nga xamante rek moom mooy suñu sécurité suñu kaaraange ak lépp loo xamante xamante ne rek dafay yombal euh, dem beek dikk bi mu nekk de façon urbaine ak lépp loo xamantene rek lu firig la moom nag njort na rek li nga xamantene rek moom mooy train express régional bi ak lii di euh, BRTP mi maanaam euh, bus transport transit yëpp rek dinañu fexe rek ba ñu am karange gu mucc ay ba tey rek kii di Malick Ndiaye ma ngay daal di dëggal rek intention bi nga xamantene rek daal dina koy am ci boobulee bopp moomel lii di transport urbain ci jëmi boppam rek fas na ko ñongal ba nga xamantene rek rek dina bokk nak ci grande infrastructure yi nga xamantene rek mi ngi fi waaye nak ñu ñongal bu baax fi nga xamantene mom moy mooy yoonu chemin de fer Dakar Bamako nekk na nak du ko yitteel ba rek ki di Mansour Fay mom dal dinay fatali rek fanweeri million ak juróom ñet yi nga xamantene rek voyageurs yi nga xamantene rek mom la doon euh, terre nak di yobbu ginnaw buñ ko defé mise en œuvre dik décembre 2021 ak li nga xamantene rek euh, mom moy acquisition 370 bus yi nga xamantene rek société bi di Dakar dem dikk moom moo ko daal di moom ci action bu nu mel kii di fay nag la mu daal di kii di Mansour Faye nag la mu daal di xamle mooy dina ko njort na ne rek bokk na nag ci ñi nga xamante ne rek daal nañuy développé bu baax avancement économique social bu Sénégal maanaam daal loolu yëpp bokk na nag ci yokk koom-koom gi ci wàllum nag société sénégalais bi yëpp ba tey rek ne na nag secteur transport bi nga xamante ne rek daal dina am nekk na mbir moo xamante ne rek mbir mu stratégie la bu ñu ko ñoŋalee rek dina bokk nag ci lépp loo xamante ni rek dafay indi koom ci biir réew mi waaye lépp luy assurance ñeel nag ministre bu yees bi rek njort dinañ ko def jëf ci bi bu abonné cloche de notification yi ngir mën